boto yee seen baay ñëw na waaw waaw waaw mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki Dakar asalaamaaleykum suma doomu ndey Abass Fall léegi nee na élection législative yi nee na waa ji bojo bojo boobu dañ ko dóoro dóoro dóoro non ma ne ko déet Abbas ba ngay rafetal wax ji rek koo dóor mën na fayu wante koo tumma moom day toog rek yàlla dañ kaa tumma tumma tumma tumma